Mamadou Gueye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax waa Rewmi FM di kontaan seen taxawaay ci réew mi. canta ngërëm ñeel la gannaaw ba nga nangoo ànd ak ñun nekk sunu gan ci euh, tey jii ci la matinale euh, ngay mandataire grande coalition Bougane 2024 tey nag di bés bu am solo ndax ci lay tàmbali dépôt bi ñeel dossier de candidature bi nga xamante ni ñeel na ñi nga xam ne dañoo bokk dañoo bëgg a bokk ci paluk njiitu réew gënu jëm jamono yi fan ngeen toll ci ci seen biir ban état d'esprit ngeen am. mais wax dëgg fa yàlla état d'esprit bu normal. et on a même le sentiment du devoir accompli dafa mel ni lan ñu yenoon wàcceeku na parce que objectif yi ñu fixé woon yàlla suturaal nañu ba am nañ ko parce que dañ ne woon ñun dinañ wuti un million de parrain pour wan Sénégal gi yëpp ñun masuñu am problème de parrain et yàlla suturaal nañu parce que y a deux jours ci centralisation bi ñu ngi woon ci huit cent vingt mille trois cent cinquante six parrain donc sant yàlla parce que dañu teg aussi dispositif bu doy waar boo xam ne Sénégal yëpp gis nañ ko donc teg li nga xam ne mooy deux mille sept cent facilitateurs ci cinq cent cinquante sept communes yëpp mais teg vingt L deux cent yoo xam ne dañuy parcourir Sénégal fa mu gën soree di indi parrain yi mais teg aussi li naan deux cent cinquante photocopieuses yoo xam ne dafa ñu doon tax ñuy photocopier ku ñu paree ni ñu photocopier sa carte d'identité parce que ñun bu ñuy def saisie bi information yi ñu ngi koy jëlee directement ci carte bi pour ne pas faire des erreurs avec surtout les fiches nga xam ne indi erreur donc euh, loolu def nañ ko ba pare responsable gëm sa bopp yëpp ci Sénégal yëpp ku nekk aussi liggéey nga liggéey bi nga war a liggéey et que tey fi may wax ak yow ça fait deux jours trois jours ñun pare nañ carrément pour déposer parce que lan ñu laaj bariwul muy cinquante huit mille au maximum cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrains en respectant quand même les sept régions validées au moins sept régions avec deux mille parrains. Mm-hmm. donc ñun moom pare nañ et benn fan. boo xam ne jàpp nañ ne fan boobu la ñu war a déposer ci période bi nga xam ne moom la ñu tegal muy du onze au vingt six pour dem déposé ji tout le dossier du candidat Bougane Gueye Dany de la grande coalition Bougane 2024. Mhm. kon weer yi yëpp yéen a ngi woon ci terrain bi ngir récolter parrainage yéen moom niñ ko war a niñ ko xamee ñu ngi leen soumettre ci li nga xam ne mooy parrainage citoyen est-ce que ah. génn ngeen ci ak tamit yan jafe-jafe moom mooy na gënoon jànkonteel mais génne nañ ci bu baax a baax parce que ñun dañu anticiper woon te ku xam ne ne xam na ne parrainage wu ren bii moom ax niñ ko doxalee moom boo amul maillage territorial ci ci commune yëpp soo amul aussi li naan appareil politique donc mënoo ko def parce que conditionnalité yi wax naa ko cette région yëpp nga validé deux mille donc loolu boo amul vraiment dispositif national mënoo ko def et loolu yàlla jàppale ñu parce que ku xam président Bougane xam ne ne ay at a ngi mu ngi wër réew mi. nit ñi bëgg nañ ko fu ne ba nga xam ne ne cinq cent cinquante sept communes yëpp ñun am nañ fa ay cellules yu actives ba pare facilitateurs yi aussi ñu ngi doon liggéey liggéey bu am solo donc ñun amuñu problème fenn rek la xam ne ne am nañ fa tuuti jafe-jafe mais mujj nañ ko résoudre muy Ziguinchor parce que normal na Ousmane Sonko fa la dëkk la président Ousmane Sonko te vraiment ñu bari gisoon nañ ne dañu téye woon seen i carte d'identité heureusement que am nañ fa ay responsable am nañ fa ay nit ba xam nañ boobu incha allah ko valider beneen coono bi mooy au niveau de Kédougou parce que ñëpp xam nañ ne Kédougou aussi euh, population bi bëriwul ñi inscrit ci fichier bi donc pour nga mën nga mën a am la nga fa bëgg aussi doon na metti mais aussi avec ténacité facilitateurs yi ak responsables yi euh, gëm nañ ne incha allah raison boobu aussi dinañ ko valider parce que suñu objectif mooy ñu valider quand même les quatorze régions buñ si la laaxaale diaspora ñu defaale ko et loolu la ñu bëgg daal mais pour l'instant daal sant yàlla tout se passe très bien ba pare nañ liggéey bi nga xam ne sasoon nañ ñu ko daal. tant mieux euh, mais li ñu li jaaxal ñëpp monsieur Guèye mooy euh, chiffres yi nga xam ne way politique yi ñu ngi koy ñu ngi koy avancé ñi naan ay millions de parent daanaka li ñu wax sax nee nañu jéggi na lu li nekk ci fichier électoral bi li inscrire wu yow ban jàngat nga ci am. mais am na chiffres yoo xam ne dafa jéggi dayoo te ña koy wax sax xam nañ ne chiffres yooyu nekkul maintenant nag bataille communicationnelle la. te comme amul lu koy vérifier ak lu koy firndeel nit moom ak coalition bu mu neex man nga wax nombre boo am mais lii wér ba wóor mooy ñun à notre niveau moom je crois que def nañ sax ay reportage wane ni nga xam ne noonu lañ liggéeyee te ñun ci sant yàlla maintenant nag euh, nit moom doo nax booy nax moom sa bopp ngay nax naxoo keneen li am solo rek mooy que tey euh, les travaux se sont bien passés et li ñu jaaxal mooy ñii di wax ñooñu la plupart sax kenn gisu leen ci terrain bi ñuy collecté comme nañ ko doon defee maintenant nag euh, bu ñu waxee loolu dañ koy jël a ay pincette donc euh, ñun daal gëm nañ ne daal élection yi c'est du sérieux donc euh, boo ci deful sérieux aussi da lay da au cours du temps quoi. ñi nga xam ne ay citoyen lañ waaye pratiquement dañuy jaay seen carte nationale d'identité dañ lay laaj xaalis ba pare pour jox leen li ñu moom est-ce que li du nu ngeen ko. non bu baax a baax bu baax man mi en tant que coordinateur national chargé du parrainage donc euh, da ngay gis ñoo xam ne dañ leen may boole ñoom ñu woo ma téléphone da ngay jël dix mille parrain cinq mille parrain vingt mille parrain waxaale pour jënd ko pour ñu jënd ko man balaa ngay commencé dama lay wax ne ñun jënd ñu parrain parce que ni mu la koy jaayee jàppal ne dina ko jaayaat keneen te en réalité jënd parrain mooy nax sa bopp parce que nag jarul sax ngay dem élection parce que en réalité euh, jàppoo fenn. te loolu mooy indi doublon yi parce que dala koy jaay jaay ko ne nous on l'a toujours refusé. Mhm. kenn mënul taxaw ci Sénégal ne ñun jënd nañ benn parrain parce que bokkul ci suñu fi bu ñuy fal sénégalais ñoo ñuy fal suivant profile bu ñu teg ak liggéey bi ñu def ci réew mi donc loolu la mais dañu jàpp ne lu mel ni Dakar les grandes villes lu mel ni Kaolack lu mel ni Diourbel ak Thiès ay marché luuma ñoo fa nekk luuma parrain surtout Dakar marché luuma la luuma parrain daal. Mhm. d'accord léegi nag ñu ñëw ci yeesaanga yi nga xam ne gis nañ ko ci processus bi euh, diggante tirage au sort bi ñuy wax ak taxawal kuréel gii di ab commission bu ñeel contrôle ak vérification parrainage bi mel na ni nag euh, ñi nga xam ne ñoo sekk wàll wi jël nañ très au sérieux la chose euh, du nar a yomb ci candidat yi est-ce que yow ban gis-gis nga am yi leen mesures ñu jël bon bu dee conseil constitutionnel mesures yi nga xam ne gis nañ ko ñu jël ko vraiment ay mesures yu baax la parce que loolu la xel sax mën a nangu parce que tey képp koo xam ne matalawoo sa dossier matalawoo aussi parrainage minimum bi ñu laajte duñu duñu duñu duñu considérer sa dossier parce que en réalité bu fekkoon ne contraire bi comme lan doon def la dinañu créel nit ñi ay doublon yoo xam ne ci ay nit yoo xam ne au finish ñu bokk ci élection yi parce que sa dossier bu manqué benn pièce wala respecté woo cota yi la jox ci parrainage bi sa dossier dafay nekk irrecevable yow mënoo bokk ci élection yi. Mhm. donc kooku boo ko jëlee di ko dugal ci machine bi parenage am yi mu indi foofu ay doublon yu sono nit ñi kooku aussi c'est injuste je crois que modification boobu conseil constitutionnel indi ko lu baax la et loolu day permettre sax tirage bi day nekk tirage boo xam ne day nekk entre ñi nga xam ne réellement ñoo déposé seen candidature respecte norme yëpp. bu boobaa tey jii euh, le vingt six la ñuy pare dépôt yi le vingt ñu def tirage ku nekk am sa heure am sa jour nga xam ne amul bousculade amul xeex comme na mu daan amee ku nekk sa heure bu jotee nga ñëw déposé ñu defal li la war a def et puis nga dem je crois que ay mesures yu baax la ay changements yu am solo la di sant waa DGE surtout seen directeur de la formation et de la communication Birane Sène nga xam ne def na ci atelier bu doy waar bu am pédagogie pour ñun ñi nga xam ne ñooy mandataires yeex coordinateurs nationaux yi. expert u DG yi wax nañ ko ba ñëpp dégg ko mu leer nañ euh, dossier bu ñu jël bu amee rek benn pièce manquante li ci des yëpp duñ ko xool moo xam sa euh, parrainage wala leneen. Euh, sa ah. dossier dañ koy déclarer irrecevable. kon mu nekk étape bu délicate est-ce que yéen a ngi mesurer euh, kon yéen ban taxawaay ngeen war a am ngeen ñi nga xam ne yéen ay waajal seen dossier. waaw taxawaay bi du dara mooy wax nañ la lépp formé nañ la bind nañ la jox nañ la guide beex yëpp donc yow sa bopp yaay jël say responsabilité vraiment pièces yëpp mat balaa ngay génn nga vérifier yëpp li la laaj ci parrainage bi nga respecté ko yëpp yóbbu ko je crois que loolu boo ko defee amul jafe-jafe. donc loolu je crois que concentration la parce que loo gis ci àddina même lekk sax bu tàngee surtout muy dëxin da ngay gis na day am pression da ngay ñàkk pression moom ci nit la waaw ci nit la bokk donc loolu moom je crois que du lay li am solo du lay quoi li am solo rek mooy yow matal li la dénk matalal piège candidat bi yëpp def lépp yóbbu et puis le reste moom da koy bàyyi ci loxo yàlla rek mm-hmm. beneen mbir boo xam ne tam way politique yi ñoom daanaka ñoom ñëpp ñoo ci ànd manko ci mu ngi ñeel euh, li nga xam ne euh, mooy euh, donc logiciel bi lan moo tax mënoo leen ko wóolu mais logiciel bi dañ ko maîtriser wul kenn maîtriser wu ko à part ñoom logiciel bi tey jii dafa génn ay incohérence yu doy waar bi paase soo xoolee ñun grande coalition gëm su bopp man maa fa nekkoon gis naa et waxoon naa ko wax naa ko ba tey ji dafa am une inadéquation mooy loo xam ne àndul entre li nekk ci biir logiciel bi ndax li nga xam ne moom la ñuy jëlee sur le terrain muy information fichier normal bi parce que fàttaliku leen législative li ta bokk ñu dañu dàq ci vingt mille non électeurs vingt mille xel xalaatu ko alors que ñooñu ñëpp ay électeurs lañ parce que ñun information bi ñu ngi koy jëlee à pati si carte bi te yaakaar naa ne amul ñaari euh, daaf amul ci réew mi ñu dàqaat ñu ci presque dix mille taille non conforme ren dañ ne date de délivrance te pourtant information boobu ñu ngi ko jëlee ci carte d'identité bi rapport machine bi même taille bi la lay jox et cetera ce qui veut dire que machine bi lu mu xamal da koy sànni fële et que tey li nga xam ne moo nekk ci machine bi ah li nga xam ne ñun moom la ñuy jëlee ci terrain bi mu normal dafay am juwaloo loolu la ne tey jii pour mu am leer ci bopp ñëpp candidat yëpp ci sénégalais yëpp su ñu defee tirage ba am ñi nga xam ne ñoo remplir les critères ñooñu vraiment ñu permettre seeni informaticiens à informatique DGE ñu toog càmbar logiciel bi parce que amuñu luñ fi làq li ñuy liggéey pour Sénégal la donc amul làqanto nañ ko génne ñu càmbar ko ba nga xam ne tey bu ñuy def tri sélectif bi donc kenn du ci am xel ñaar et bu boobaa day nekk vraiment une certaine transparence boo xam ne démocratie Sénégal rek moo ci am ndam mhm. mais logiciel du logiciel boo xam ne ñun mën nañ ko wóolu gis ngeen keroog erreur bi ñu décelé ci clé bi parce que ñoom am nañu possibilité verrouiller li nga xam ne mooy yenn option yi sur période périodes ou sur des numéros de série et que bu booba yow boo jëlee lu baax ci terrain bi indi ko buñ ko dugalee ci machine machine bi du ko reconnaître parce que dañ ko verrouiller sur une période ou sur des séries bu boobaa dala koy defal ay pare rouge da koy sànni bu boobaa dangay ngay daanu alors teguñu ko ci yoon c'est-à-dire dafa ñu sàngu mais li ñuy def yëpp ñun xam nañ ko <coughs> d'accord parce que bu fekkente ne ni gouvernement bi gouvernement bi moo censé organiser des élections jaarale ko ci yoon amul sens mu teg logiciel boo xam ne peut-être euh, ñëpp d'accorduñ ci pour yow loolu bu amee ñoom lan lañ ci war a mën a jublu. non li ñu ci jublu rek mooy def le tout éliminer les vrais candidats pour que seen candidat fantoche boobu euh, man a jàll parce que ñoom ils veulent une continuité dans ce pays or nous nous refusons cette continuité. continuité tey fi ñu toll nii moo ñu jël suñuy basang rek dem armée yi toog xaar parce que ñu ñëpp on est mort la situation du pays est extrêmement difficile les gens vivotent ñenn ñi dee nañ bu yàgg sax di dox ni donc mënuñu kon ne continuer maintenant ñoom li leen arrangé mooy ñu nekk ci continuité parce que ñoom gis nañ ñëpp ni ñu taxawee ci réew mi. et que li ñuy def yëpp c'est pour éliminer les véritables candidats pour que seen candidat moom am chance pour jàll et loolu je crois que les nañ ci buñ bëggee lu leer logiciel boobu nañ ko teg. candidat yi respecté les critères informaticiens yi toog ñu càmbar ko ba nga xam ne bu subaa kenn du ne vraiment lele léeg ah léeg de leer ci boppu ñëpp daal. Mhm. mais est-ce que yéen tirage au sort bi taxul ngeen tëdd nelaw ba yandoor. non ñun amuñu parce que bu xoolee ba xool tirage au sort bi sax amul du am yenn jafe-jafe yi pourquoi parce que gisoon ngeen ne ne y a plus de actuellement ci lu ñu wax deux cent quatre vingt yu jëli ay fiche mais boo ko xoolee li nga gis CD CDC te boobaa noonu lay demee aussi bu ñu déposé dossier yi man gëm naa ne du ñu àgg ci vingt mille candidats yoo xam ne rempli condition yëpp ba bëgg na dugg ci tirage bi donc hmm. danger bañ ci doon ragal aussi mën na wàññeeku parce que gëm naa ne aussi ñenn ñi moom muy ñi ne ci nguur gi mu yenn opposants yi aussi du ñu dem ci parrainage citoyen parce que dafa am risque ñoom ñëpp boo moytul te wax nañ ko dañuy basculer ci parrainage des élus avec leurs députés Mm-hmm. bu boobaa aussi lañ ci doon ragal lépp lu bari du ci am par rapport au doublon. Mm-hmm. jàpp nga ni ñu bari dinañ jàll. bon jàpp naa daal man li ma jàpp ba jàpp ko mooy élection yi fekkee ne logiciel bi génn ñu ko ba information yi càmbar ko candidats yi duñ dépassé huit candidats <laughs> parce que ñoom noonu lañ ko tëggee te boo xoolee seeni sondage yi ñu def sax ci foofu lañ koy miser maintenant nag le komba combat wu F24 combat wu fit combat wu sénégalais yi bu ñu xamee ñan ñoo validé ñan ñoo respecté ba ñu war a dem tirage war nañu mën a toog ñu càmbal logiciel bi et loolu dafay yokk transparence rek mais ni ma gisee ni moom avec ce logiciel là li naan tout est possible lu ne mën na xew. Mhm. luy kàddu gu mujj gi. mais di sant leen gërëm leen mais di wax aussi ne que euh, vraiment Sénégal fu mu toll amatul lu ñu war a lépp dafa war a leer ñu dem ci ay élections transparentes libres et inclusives quand on inclusive nag vu la situation mooy que képp koo xam ne remplir nga critères yëpp nga bokk. Mhm. ñu bañ a téye kenn ci ay parrainage wala kenn ci ay ndëgg sarax comme ni ñu ko gisee ci wàllu yoon ku war a bokk remplir les critères yoon may la nga bokk na nga bokk Sénégal ki ko war a jël yàlla fal na ko ba pare. bu boobaa ñëpp topp ci ginnaawam liggéey ngir l'intérêt Sénégal et génn Sénégal ci guuta gi nga xam ne moom la ñu nekk. di leen gërëm di sant waa ñu nit ñu lay gërëm bu baax Mamadou Gueye mandataire de la grande coalition Bougane 2024 tey jii ci suba si invité de la matinale kon ñu yendoog jàmm kon ñu yendoog jàmm.